alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ya ayyuha an-nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa xalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan kasiran wa nisaa wattaqu allaha alladi tasaaluuna bihi wal arxam inna allaha kaana alaykum raqiba ay yéen mbokk jullit yi ñu ngi sant sunu boroom subhanahu wa taala ci xéewalam mi nga xam ne mënuñu koo fekk di gëm na ci moom rek la jóge moom dong moo ko mën a yokk moom dong moo ko mën a sàmm ñu ngi koy ñaan mu julli suñu yeneen tëba bi mu yónni woon ci ñun mu nekk sunu royukaay ci jaamu suñu boroom yal na yàlla julli ci moom ak njabootam ak ñi koy roy ba ila yawmi diin ñu ngi leen di dénk ngeen ragal yàlla sax ci ragal yàlla googu kenn ci yéen bu mu dee lu dul fekk mi ngi jébbalul boroomam subhaanahu wa taala am na sunu xutba tey mi ngi jëm ci fàttali ana lan mooy àq yi nga xam ne sunu borom yàlla da ko teg ci kaw soxna ak kii di borom këram ci jamono ji nga xamee ne nii ñun ñi yàlla nattoo ñuy ay imaam dañuy yëg ne bari na sëy yu bari yoo xam ne nii dañuy nekk di yëngu yee tas nañu yee tasul it ñu ngay dund ci fitna doonte ne loolu bu ñu xoolee lay gën a màgg lay jur loolu mooy réeri njàngalem diine lislaam gannaaw ba nga tuddee Fatima wala Muhammad mooy réere la nga xame ne nii moom mooy tegtal ya yàlla tegoon yoo xam ne bu ca way dencante yi jaare insha allah daañ dund ba tabbi ajjana yal na yàlla defal ñu ko sunu njaboot ay yéen mbokk julit xam leen ne suma borom subhanahu wa taala dafa gàll góor ak jigéen ku nekk ci ñoom ay àq yoo xam ne day aju ca seen yaram ya aju ca seen alal ya aju ca la nga xam ne mooy société bi ñuy dund sunu borom yàlla joxoñ góor ñi ne leen ay waay jigéen ñi ne ngeen nekk ak ñoom ci njëkk waaye wëlbatu ko waatit daa ji ne ay yéen góor ñi xam leen ba teyit ne jigéen ñooñu la leen war naka noonu lu tol noonu yorol nañu leen ko ay kon ku nekk ci ñoom am lu ñuy tudde ay àq waaye am lu ñuy tudde ay wareef ñu koy tudde ay droit ak i devoir loolu moo tax ba heure boo xamee ne képp ci ñoom taxaw na ca droit ya nga xam ne muy devoir wareef yam waroon a taxawee loolee dangay gis ne jàmm dong muy am ca sëy ba amma bu dee kenn ci ñoom ñaar wala ñoom ñaar ñépp bokk nañu safaanoog la yàlla waxoon ñu taxawu ko sëy bi sëy boobu day mujj nekk fitna ci ñoom mujj nekk musiba ci ñoom bal mën na yàgg yégg sax ba yàq la nga xam ne mooy seen diine bokk julit ay yow góor gi yàlla dénk soxna xamal ne bul jóg mukk ne dama bëgg soxna si mel ni ma neex xamal ne soxna soosu amul ci kaw suuf sunu yenente sallallahu alayhi wa sallam moo ne dee leen dénkante ci jigéen ñi aw yiw ndax li nga xam ne mooy jigéen day yàlla moo ko bind ci faar ca la gën a kawe ci faar moom mooy bopp ba heure boo jógoon jël sa yaxu faar ba nga jële ci xar wala leneen ne tey danga ngaa bëgg mu jub kocc loolu la muy firi mooy da ko bëgg a damm ay kon boo jógee ne sama soxna duma ma ko toléreel dara ni ma bëgg lay war a mel loolu may wane rek da nga koy fase mu dem yoonam loolu moo tax ba ngal la way xamal ne njàngalam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy jëlal sa soxna ca nga muñ la nekk ci moom ci ay dëng-dëng waaye yonent bi alayhi salaam dalal suñuy xel ci lan mu ne ay yow julit bu góor doo bañ mukk julit bu jigéen waaye yow julit bu jigéen doo bañ mukk julit bu góor ndax bu dee am na jukko boo bañ ci moom it soo xoolee danga am jukko boo gërëm ci moom mbokk julit munta ñàkk julit euh, jukko bu ñu gërëm ci moom kon nga la waay yow jëkkër heure boo xoolee lii day neexuma sama soxna bàyyil xel la ko yàlla mu neex la naka noonu itamit soxna heure boo xoolee ne lii day neexuma sama boroom kër bàyyil xel la ko yàlla binde ca mu doon loo xam ne lu neex la ku nekk ci ñoom ñaar ne jël la nga xam ne moo yomb ca xam ne ak mag mënul nekk ci kaw kenn loolu kon mooy la nga xamee ne nii moom lañu ñu sunu yonent sallallahu alayhi jàngal rawatina yow góor ngay doon kuy muñul sa soxna ci lépp loo xam ne nekkul lu yàq diine lépp loo xam ne nekkul lu yàq jukko ju rafet amma tolof tolof ya koy dal loolee nga doon koo xam ne nii da ko ciy muñal xam ne it sunu borom yàlla gàdd na la nga taxawe ko ci di dépense ci moom ci lépp lu aju ci dundam ak koddaayam ak fa mu war a dëkk sunu borom yàlla mu ne loolu góor gi mooy responsable ci loolu loolee da ngay gis ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee ngal la waaye booy lekk mayel sa soxna mu lekk la ngay lekk boo woddoo woddal sa soxna ngal la waaye bu ko nekk di ko xase ko jéppi ci kanamu nit ñi lépp looy def def ko ci biir kër ga loolee mbokk mooy la nga xamee ne moom lañu ñu sunu yeneen ci alayhi salaam tegtal même bu dee ne jafe-jafe am na sunu borom yàlla jalla wa ala ne waaral sa soxna na nga doon koo xam ne nii kuy ñaan keneen sax dimbali la ci moom yii yépp mbokk lan la ñuy jàngal mooy sunu borom xamoon ne bam ñu santee ñu sëy ne abadan sëy boobu munta ñàkk léeg-léeg kenn ci ñoom ñaar def lu neexul moroomam waaye ay yow mbokk julit nañu xam ne sëy la nekkoon baasam mooy képp kenn ci ñoom ñaar heure bu nekkee ci kanamu moroomam jàpp ne maa ngi ci xaal bi gën a am solo ci sama dund yëg ne ak dal am na ci man sunu borom yàlla mu ne diggante way dencante yi moo def seen diggante lii di cofeel waaye mooy def seen diggante lii di yërmande ca mooy góor war na sexe bëgg soxnaam war na fexe yërëm soxnaam noonu it la sunu borom santaane jigéen yërëm jëkkëram waaye bëgg jëkkëram mu ne lii nag borom xel ñoo koy jëfandikoo li qawmin yatafakkaruun amma bu dee waa ju topp bànneexu bakkanam ki jël xelam sànni ca gannaaw la muy sàkku ci soxnaam rek mooy la koy bégal moom soxna sayit la muy sàkku ca borom këram rek mooy la koy bégal amma sunu borom jalla wa ala daf ñu waxoon wala tansawi alfadla baynakum bu leen fàtte ay nga ñëw seen diggante ku nekk ci ñoom ñaar la xool lan moo war a neex moroomam lan mooy war a jëriñ moroomam mu jéem a taxaw ci loolu te it sunu yonente alayhi salaam ne kama tudiinu tudaan heure boo xamee ni nii borom kër dem na ba yëg ne soxna sii kat man ku ma bëgg la ku ma yërëm la mi ngi dox guddeeg bëccëg ngir lu may jëriñ lu mu yàgg-yàgg moom it dana ma sa wëlbatiku jéem a fay ko la nga xam na mooy borom naka noonu itamit uh, soxna si nga xam ne yëg na ne bëgg nga ko yërëm nga ko yaa ngi koy taxaw lu mu yàgg yàgg dana jéem a ko fay la sa bor loolu moo tax ba ngalawaay képp ci yéen ku nekk ci sëy wala muy digal kuy sëy na ko digal loolu di base bi ca mooy bëggante ak yërëmaate yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sunu borom joxoñ na ko loxo ne ko yërëmaane bi ma def ci yow moo tax nga mën a ëmb borom alal yi ak ñi ñàkk ëmb ñi dëkk ci réew mi ak doxandéem yi ëmb góor ñeeg jigéen ñi ëmb baadoolo yi ëmb ñépp ñi nga xam ne dañoo ñuul ñii nga xam ne dañoo weex loolu may la nga xam ne moom la ko sunu borom wax fa bima rahmatin min allahi linta lahum walaw kunta fazzan galiza alqalb lan faddu min hawlik bokk na yërmaane bu def ci yow yow de da ngaa nooy amma bu doon da ngaa doon ku dëgër doon tàng xol nit ñi dem bala fi loolu it da gis góor boo xam ne ku naqari deret la góor boo xam ne ku tàng xol la du muñal ay soxnaam dara soxna si guddeeg bëccëg bu dem it ma ngay xalaat ban pexe laa mën a def ba génn ci sëy bi ay yow mbokk julit sama mbokk góor xamal ne sunu yonente sallallahu alayhi wa sallam sunu borom moo ne ko wa'mur ahlaka bi salaati wastabir alayha na nga digal sa njaboot ci julli ca nga muñ ci julli googee loolu mooy wane fexe leen ba njaboot gi ngeen musal leen ci sawara comme na ko yàlla waxate yeneen aaya quwa anfusakum wa ahlikum naara loolu kon bu ñu lay wax àq bi jëkk bi nga yoral sa soxna àq bi nga jëkk bi nga yoral sa xamal ne du may ko mu lekk mu naan xamal ne du dëkkal ko waaye wala wodd ko waaye mooy nga te teete ko ci yoonu siratan te te ko ci yoonu mu wéetal te teete ko ci yoonu mu taxawal julli teete ko ci yoonu dox digganteeg lépp lu xaraam bokk na ca mu sàmm awraam bokk na ca mu sax ca la nga xam ne mooy njàngalem lislaam yonente bi alayhi salaam ci loolu la saxoon amma bu dee ci wàllu àdduna am na richard yu ko waroon am nañu daan takkal seen njaboot or kaw ba ci suuf waaye teewul yonente bi alayhi salaam ne woon man day xam leen ne gën ci yéen mooy ki gën ci njabootam te man may ki gën ci sa ci sama njaboot xayrukum xayrukum li ahli wa ana xayrukum li ahli lii mbokk da ngay gis ne kon yow góor boo bëggee am nga ay ngëneel ca yàlla bokk na bunt ba nga koy wute mooy def njëkk ci sa njaboot waaye naka noonu it buñ ko waxee góor ñi dañuy xam ne it ndekete yoote bokk na jigéen bi gën ci jigéen ñi mooy jigéen ba gën kenn ni muy rafetal digganteem ak borom këram bokk na ci loolu bu dee yàlla daf laa may yow góor nga am ñaari soxna wala ñetti soxna ngal na waay nga maandu diggante soxna yooyee te la nga xam ne moom nga leen di jox la nga xam ne moom ngay dëkke ak ñoom am amma sunu borom moom mën na dogal am kii nga gën a bëgg wala keneen nga gën a bëgg loolee ab xol la boo xam ne yàlla mën na ko ba ci jamono ju nekk moo tax yàlla subhanahu wa taala toppewuñu ko bu doon te ne nag ñoom dañoo d'accord ci am kenn koo xam ne dañ koo jagleel ak jagle su boobaa loolu moom lislaam lu ci wax dara moo tax suñu ay Aïcha kii nga xam ne mooy suñu yaay Sawda jëloon na bis bi yonent bi alayhi salaam doon war aye ci moom mu ne ko man kat léegi dama màgget sama bis dee ko aye ci Aïcha loolee di gis nañu dara nekku ci yonent bi alayhi salaam bi mu demee ba feebarit bay laajte ana fañ laay war a aye suba ndax maanu teem nga sallallahu alayhi wa sallam na yi dañoo dëppoo ne ko léegi demal toog néegi ay Aïcha néeg yaayu ay fa la toog ba fa ko yàlla faate kon lépp loo xam ne soxna ya d'accord nañ ca loolee yàlla du ko toppe góor amma loo leen bunduxatal force leen ko ca dug maanute loolee xamal ne ci bakkaar yi gën a garaaw la bokk sunu borom yàlla jalla wa ala gis nañu ne la nga xam ne mooy àq ba mu wax jigéen yoral ko góor loolu moom moo gën a màgg téeméeri yoon nga la waay jigéen ñi xam leen loolu sunu borom yàlla subhanahu wa taala mu ni walahunna mislu lazi alayhinna bilmaaruf waaye walirijali alayhinna daraja ku nekk ci ñoom yoroon na moromam ay àq waaye góor ñi la yàlla def ñu nekk la xam ne ñoom ñooy ay kilifa nga la waaye xamal ne sunu yonente alayhi salaam daana wax ne bokk na jigéen bokk na góor ku mu war a gën a fonk moom mooy yaayam waaye jigéen kam war a gën a fonk moom mooy jëkkëram bokk na la ngay fonk sa jëkkër mooy toogal ca la nga xamee ni nii moom mooy këram jëkkër ji moom mooy ka nga xamee ni ni moom mooy wala taxawe yow nga daal di koy sàmmal la nga xamee ni nii moom mooy gannaawam sàmmal ko la nga xam ne moom mooy njabootam xamal ni itamit ne sunu borom yàlla dogal na da nga koo war a topp ay ndigalam lu dul ci ñaari mbir benn loo xam ne dalay lor wala loo xam ne dafa xaraam amma bu dee digal na la loo xam ne xaraamul wala digal na la loo xam ne genn lor nekku ca yow jigéen boo ko deful da ngay am bakkaar sa kanamu boroom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam keroog bi Muaz ibn Jabal jógee ca Yaman ñëw gis ko daal di koy sujuutal mu ne ko ma Muaz li lan la mu ne damaa gis waa Yemen di sujuutal seen labbe yu mag yi ma xam ne yaa ci gën a yey yonent bi alayhi salaam dana déedéet bu doon damay digal kenn bu gisee moroomam mu sujuutal ko kon doon naa sant jigéen ñi ne leen képp ku ci dajeeg borom këram na ko sujuutal waaye ñun julit duñu sujuutal ku dul yàlla jalla wa ala xamal ne mbokk julit bokk na ay àq yoo xam ne yow jigéen yàlla teg na ko ci yow moo di ne sunu borom yàlla jalla wa ala lam dogal ngeen war ko siq ca kaw lal ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na bépp góor boo xam ne dafa soxla soxnaam ci amul ngànt mu lànk bañ koo dikkal malaaka yi borom bi daañu fanaane di ko rëbb ba baa suba di jot loolee ngeen bàyyi ci xel bu baax bokk na àq bu mag boo yoral sa borom kër mooy lañuy ñuy tudde taar mooy nga taaru ñeel ko loolu ab àq la boo xam ne bu dee mii ngi fi da nga koo war a taxawee looloo tax jigéen bu jëkkëram faatoo ñu ne ko bàyyil taar bokkoon na ci it bu jëkkëram tukkee mooy mu daal di bàyyi ak taar amma bu fa sox jëkkëram nekkee war naa jéem a taaral yaramam waaye taaral ay waxam waaye taaral ay néegam waaye taaral ay ñamam taaral lépp loo xam ne jëflante la gu dox diggante ak moom loolu suna sunu borom ne wax ne aw man yunashau fi lxilya xoolal ki nga xam ne day dund ci la nga xam ne mooy taar sunu yenente sallallahu alayhi wa sallam dem na ba sax lii di wàllu jaamu yàlla mu ne ay yow soxna xamal ni amuloo droit jóg naan da ngay woor woori naa fi la fekk na sa borom kër mi ngi ci kër gi lu dul da nga koo laaj ndigal ana kon yeneen génn ya nga xamee ne nii ay yenn génn la yu jëm ci wàllu aada wala wàllu cosaan heure boo demee bay génn sa kër ngal waaye na nekk sa ndigalu borom kër heure booy jël ay mbir ci àdduna di ci dugg ci ñoo ji war a jaxasool nga la waay laaj ca ndigalu borom kër te loolu nga bañ koo def ngir loo soxla ci moom waaye nga def ko te yàlla tax mën na am borom kër gi yaako ko looje sa kër mën na am borom kër gi liggéeyul yow yaa ko yor waaye lii lépp teewul nga war koo déggal ci yàlla tax lan moo waral loolu mooy àjjana ba nga tey sàqu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni bépp jigéen boo xam ne taxawoon wane lii di waxtu julli juróoman daa di woor weeru kooram su amee alal mu génn ca zakat daa di topp ndigalu jëkkëram buy dee di tabbi aljanna buy dee di tabbi aljanna kon nga la waay fexeel sàkku aljanna ci sa borom kër ak loo ko mën a ëppale ci àdduna loolu moo tax ba mbir la boo xam ne ñu ngi koy fàttaliwaat suñu ndaw ñi nañu xam ne suñu teddaa ngi dëgg mi ngi ci ñu dund lislaam looloo tax wareef la ci ñun ñu góorgóorlu xam ne xéewal gi gën a màgg gu doomu aadama di am mooy xéewlu imaan gëm yàlla bañ koo bokkaali ngëneel bi gën a rëy bu doomu aadama di am mooy mu dund la nga xam ne mooy diini lislaam sunu borom yàlla moom la wax ne al yawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islaama diina bis nekk tey matal naa sama xéewal ci yéen mottali sama mboole mi xéewal ci yéen gannaaw bu ma matalee seen diine mbokk xéewal googu mooy alquran ak sunna képp koo xam ne bëgg naa réussir ci lépp lu mën a doon ci mbiri àdduna te bokk na la ci gën a màgg ak sëy ngalla waay sa sëy tënk ko ci kaw alquran ak sunna amma képp ko safaanoog loolu sunu borom yàlla nee na wa man arada an zikri fa inna lahu maishatan danka képp koo xame ne nii safaanoon ak samay ndigal jàpp ne alal rek ay sëy wala ab taar rek ay wala situation rek ay sëy ku mel noonu sunu borom yàlla nee na tôt ou tard da nga mas a am dund goo xam ne dund goo xat la ci àdduna bu la yàlla jéggalul yowmal qiyaama nga am dund gu gën a xat yal na yàlla dëppale ñu njàngalem alquran ak sunna yal na yàlla dëppale suñuy sëy na ko yonent bi alayhi salaam jàngale woon yal na yàlla defal ñu cofeel ak yërmaane digganteeg suñuy soxna diggante soxna it ak seen borom kër yal na yàlla defal ñu suñu kër yi di kër yi lislaam yal na kër yoo xam ne day ànd ba ba ëllëg nekk kër al ca biir aljana firdawsil aala yal na yàlla woyefal natt yi tege ci kaw julit ñi guerre yi am ci adduna bi ci Afrique ca fa nga xam ne mooy dëkk arab sunu borom yàlla am na kàttanu fay ko yal na yàlla fay ko julit ñi nga xam ne dañ caa faatu yal na yàlla yërëm leen ña nekk ci ay feebar na yàlla saafara leen ña te nekk ci tumuranke yal na yàlla xettali leen yal na yàlla musal loolu sunu réew ci fitna yooyu ñuy dégg yàlla na yàlla wàcc ci réew mi jàmm ak aafiya yal na yàlla jubale ñi nga xam ne ñoo ko jiite ñu teete ñu ca la nga xam ne mooy neex yàlla neex yonente yàlla yal na yàlla sàmmal ñu suñuy ndaw sàmmal ñu sàmmal ñu la nga ne mooy suñuy màkk yàlla na yàlla defal ñu mujj gu rafet defal ñu àjjana muy suñu wàccuwaay allahuma rabbana atina fi dunya xasana wa fi laxirati xasana wa qina azaba annar subhana rabbika rabbil izzati ama yasifuna wa salaamun ala almursalin walhamdulillahi rabbil alamin